alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant ci ma ne leen dañuy waaj ab siyaar ci sëriñ Cheikh ngeen tontoo mel nii ngeen loolu de loolu de naa ci mbir moo xam ne maa ngi ñaan sëriñ Saliou fekk leen ci doole biir ak doole askan wa ñu jox suñu bopp Serigne Cheikh nan ko doyloo nan ko dëgmal tàmbalee ci moom yem ci moom nañu way nañu doon ay murit ñun Serigne Cheikh ay suñu ci Serigne te sunu jàmbaar jële sunu sëriñ bi da koo jébaloon boppam kookoo xamoon lu rafet ba sëriñ Saliou dafay sekkare ni keroog ba muy ànd ak man di jébal boppam sëriñ Cheikh ci kanam àddina loo ànd ak moom ànd wu sell bu rafet daan dem maa ngi koy fàttaliku tawatam bi jëkk en 2009 Daaru Salaam murit la jóge ñëw Madinatu Salaam fa la jëkk a defee AVC waaw maa ngi koy fàttaliku kon kooku ak murit sadiq kookoo xam lu baax te daan ko def kon maa ngi leen di soññ ci ñu jëm ci Serigne Cheikh fas yéene koo liggéeyal nañu waaj comme Cheikh mooy mooy borom xelkom noonu ñu leen mu ànd bu wéree te mu gis ci ñun pëstéef danañu delloo xelkom Thank you. maa ngi bëgg lool maa ngi bëgg lool rajo maa ngi bëgg lool maa ngi bëgg lool maa ngi bëgg lool waaw maa ngi bëgg lool kon nag gaa ñi maa ngi maa ngi bëgg lool maa ngi sant bu baax